Abdoulaye Sylla moom ñu ngi dégg jëf yu baax yi muy def ci ci réew mi yëpp so côté social bi lim mu siy def tamit ñu ngi koy ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis donc loolu noonu tamit lu rafet la parce que boo ñëwee am li nga am ñëwaat ko waat di ko bokk ak nit ñi loolu moom dañ koy rafetlu te loolu ñun jeunes yi loolu lañ soxla. nga rafetlu rek ndax euh, gis nañ euh, liggéey bu rafet bi muy def si réew mi ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Sylla borom Ecotra donc. di di di rafetlu li nga xamante ni mi ngi koy def. di ko encouragé di ne kii ku gis lii nii xam ne kii ku ko jox réew mi tamit xama nga mën na yor réew mi ndax ku koo xamante ni dara amagut mu ñëw xam nga bëgg la jàppale kon kooku boo ko joxee réew mi gëm naa ne mën nañ ci am yaakaar tey jeunesse bi xam nga pare nañ pour 2024 jàppale ko xam nga ci élection yi 2024 yi. ñu ngi am ànd ak yéen ci c cinquante mi fi teew ci. ndigalal sëñ Ablaye Sylla mi nga xamante ne moom moo jiite C50 ñëw teew tey suñu koñ ñu am yaakaar ci moom nag wax dëgg yàlla ci li muy def ci réew mi di ko def ci dëkk bi di ko def ci social ñu jàpp ne ne suñu yaakaar ci moom du tas moo tax tey ñu am mbégte contentement bi ñu am sax mënuñu ko wax parce que bu ñu toogee ba doon ku dégg ci rajo yi ak télé yi ñu dem tey bañ doxantu ñëw suñu gox mbégte moomu ñu àndal mënuñu ko wax kenn ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne sëñ Ablaye Sylla teg na ko ci sa loxo kon yàlla na la suñu borom taxawu te may ko ci ndam lu kawe njort kon koo xamante ne mu ngi yëngu ci social ñun la koy defal donte ñu ne dañuy yëngu ci social bu doole ji bëri ñu ngi sant yàlla bu baax ci liñ koy def parce que loolu it tawféex la boo xamante ne yàlla moo koy jagleel doomu aadama ndax alal dafa sax ci xol su ko nit amee nanga koo partagé doomu aadama yi ak julliti yàlla yi te xooloo ci kenn ñëpp nga ko yemale kooku sant yàlla la kon ñu ngi lay wax ne la nga jotaleel ñu suñu nuyoo ci Serigne Abdoulaye Sylla nee ko waa teenu jaago sant nañu rafetlu nañu taxawaayam ci yónnee gi mu fi yónnee loola dalal na sunum xel te jàpp nañu ne yaakaar googu ñu am ba nga xamante ne yéen a ngi koy dox si fii su fi jógee yaakaar googu suñu borom mën na koo mottali mais yow it ñu ngi lay sant ci jóg gi te temps bi xat na nga bàyyi lépp ñëw ngir suñ jëmm yi kon yow it li nga xamante ne Abdoulaye Sylla teg na ko ci sa loxo ak waa C50 yëpp am yaakaar googu ceew yow yàlla na ko suñu borom mottali. di remercier président euh, Abdoulaye Sylla. Euh, parcours bi nga xamante ne ou xalaat bi nga xamante ne xel mi nga xamante ne bàyyi na ko waa waa Mbacké euh, je pense que aussi lii dal na xel ndaxte am na ñoo xamante ne waroon nañ koo def te peut-être gisuñu leen moom peut-être mun nañ ñoo wax ne Euh, rôle am bi mu bi mu nekk ci ci ci ci réew mi ak ci bitim réew c'est-à-dire di di di jàppale nit ñi euh, donc loolu su demee su jëlee tey jii benn délégation mu mu envoyé ko Mbacké pour ñu sillonner di xool kër yi nga xamante ou bien koñ yi nga xamante dañoo am jafe-jafe ci wàllu mbënd mi loolu da du ñu def lu dut jaajëfal ko di ko remercier mais aussi di lancé benn benn appel ci waa population de de de de Mbacké ñu xam ne tamit euh, je pense que aussi nit su fekkee par exemple defaloo ko dara mu mu mu lay jàppale dindi temps yëpp ak léppam di la nemmeeku di xool si lan lan nga nekk fas yéene jàpp jàppale la donc kooku noonu je je pense que ci lépp lu mu nekk gars yi dañ cee war a nekk je pense que euh, C50 nekk na loo xamante ne chance pour Sénégal la mais aussi chance pour département de Mbacké mais d'une manière général parce que aussi choix bi aussi jógewut au hasard munoon nañoo tey jii jëm par exemple feneen képp koo xamante ne soxla nga avancement waxuma la tey ak feneen foo mun di dem munoo tant que jegewoo CC50 ou bien euh, jaaroo ci pas yi mu jaar doo avancer donc euh, président Abdoulaye Sylla euh, man en tant que représentant CC50 fi fi fii ci Mbacké par ma voix population de Mbacké ñu ngi lay remercier di la ñaanal di la ñaanal aussi te di la wax ne tamit lépp loo nekk suba ba ngoon ñoo ngi ci waaw ñu leen wax daal mbir mi daal daal a ngi noonu comme ni ñu ko waxee aussi suñu xel dal na. di ko di leen remercier di ñaanal C50 ca kaw ca kanam li ngeen ci namm liñ ci namm ñun ñëpp ñu ñoo ko xam yal na ko suñu suñu borom mottaleel waa Mbacke daal kontaan nañ bu baax a baax a baax.